waaw waaw septième combat de la soirée septième combat de la soirée moom laa doon sori ci biir géew bi Dame Dame Junior moo ñëwoon ginnaaw noonu la numéro deux moo jàkkaarloo ñun boo koy jàkkaarloo boo koy sax moom ñu jàkkaarloo ci biir géew bi mi ngi noonu monsieur Lappé si dana génn seen diggante arbitre si dana génn seen diggante sama gars yi comme ni ma leen ko waxee tey dimanche 13 août 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur jamaïcain à la tête de la structure Jam Production numéro 2 Fataranta Junior waaw waaw Douglas Boy Thiam moo ko toogal siis Douglas Boy Thiam moo ko toogal siis waaye Ramdan Junior ci di bay bana sun moo ko toogal siis ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo attention Douglas mel na ñu ko dem waaye demul eh eh gauche droite talonné waaw waaw roofoo nañu kon nag jàpp na Ramdan jël na attention mi ngi dugalay mi ngi dugalay kuw Douglas c'est bon mi ngi dem na trois combat trois koy dal da koy dal woo dem na ko dem na ko dem na ko Ramdan dem na ko Ramdan dem na na jël na jël na wérante ren dañ fi ñëpp dem na Douglas ndeysaan Douglas saison ren bi trois combats la trois victoire kii moo nekkoon quatrième combat kii lay doog a ñàkk ndeysaan la ma demee noonu daan ak daanu la daan ak daanu la fa daan day neex mais boo daanoo nangut te li ñun ñu daanu wuñu tiisu na tiisu na tiisu na tiisu na waaye nangu daanu de daanu nga daanu nga Gosaas ndeysaan Ramdaan daan na ko jël bi dafa rëy jël bi def ne xale yi bëre xale yi dañoo mën a bëre xale yi dañoo mën a bëre seen i combat day neex dañuy bëre mi tey li mobilisé Douglas dafa mobilisé ba dee nag waaye daan na ko final plateau boo ci taa bu ci dañoo a dugg jëlal Baye Bada Soum mi ngi doon ànd ak Poulain Ombrane Dane dimanche 13 août 2023 fii ci arène nationale le promoteur Deme Diarra te Diarra Couture dem production moo organisé Ramdan Senior daan na Douglas la déception de Douglas xoolal ndeysaan mi ngi koy yóbbu booy boucher dem na jëli ko ndeysaan Douglas bëre nga ba dee waaye daanu nga nangu ne daanu nga noppal sa bopp waaw waaw septième combat de la soirée septième combat de la soirée moom nga doon sori ci biir numéro 2 Fataranta Junior waaw waaw Douglas Boy Thiam moo ko toogal sées Douglas Boy Thiam moo ko toogal sées waaye Ramdan Junior ci di Baye Bada Soum moo ko toogal sées ñu ngi Leewtoo ñu ngi Leewtoo attention Douglas mel na ñu ko dem waaye demul eh eh gauche droite talonné waaw waaw rofoon nañu rofoon nañu jàpp naa Abdel attention mi ngi dugalal coup Hamdan mi ngi dugalal coup Douglas Senghor mi ngi dugalal coup attention da koy dal da koy dal moom su nekk sa dooram bi sama combat la sama victoire kii moo nekkoon quatrième combat kii lay doog a ñàkk ndeysaan la ma demee noonu daan ak daanu la daan ak daanu la fa daan day neex mais boo daanoo nangut sali ñun ñu bëriwul daanu wuñu ñun ñu bëriwul daanu wuñu ñoom ñooy bëre ñooy daanante ak seen biir waaw ñoom ñuy bëre ñooy daanante ak seen biir ndeysaan siisu na siisu na siisu na siisu na दानूगढ़ है दानूगढ़ दानूगढ़ तो रास्ते चल रमजान जान नको चल कितने चल खड़े ही दिनों दिनों को मार नहीं नहीं पर नहीं मोबिलिटी से मतलब टुकला से मिठाई ली मोबिलिटी से टुकला से मोबिलिटी माशाल्लाह मेरे ना बटे ना कोई डालू ना रमजान जान नको ना बटे में कम पहले सम पहले की सीधे कुछ combat bu Siteu ñoo war a dugg jëlal Baye Bada Soum mi ngi doon ànd ak Poulain Ambram daan dimanche 13 août 2023 fii ci arène nationale le promoteur Jamay Diarra te dara ko ci dem production moo organisé Ramdan Senior daan na Douglas daan na section de Douglas xoolal ndeysaan mi ngi koy yóbbu booy bu Siteu dem na jëli ko ndeysaan Douglas bëre nga ba dee waaye daanu nga nangu ne daanu nga noppal sa bopp